ñu ngi gisee ak ministre du commerce tey ndaje bu yaatu ci diggante euh, ñaari fédération yi muy fédération nationale des boulangers du Sénégal ak le regroupement des boulangers du Sénégal donc région yi ñëpp ñëw nañu fekke si ndaje bi ndaje bu am solo tey wax nañu jàkkaarloog ministre bi wax ko li nga xam ne mooy feebaru secteur bi moom la ñuy dund lii xew ci Dakar xew ko ci région yi lépp teg nañ ko ci taable bi waxtaan ko si njëkk ak teraanga ministre bi comme ni ko président de la république sante woon sant ko gouvernement yam pour ñu recevoir acteurs yi waxtaan ak ñoom def na ko tey ak ñun donc ñu ko ci gërëm di ko ci sant mais également di gërëm njiitu réew mi donc waxtaan nañu waxtaan nañu problème yi nga xam ne moom mooy euh, moo tax secteur bi nekk ci li mu nekk ñuy génn di wax donc waxu grève bi ñu doon wax teg nañ ko ci suuf mais ñu ngi continuer di demander njëgu mburu bi ñu xoolaat ko parce que intrant yi dafa cher ku ne intrant ne farine ne lewir ne produit ne xorom ne courant yooyu yëpp dafa cher loolu moo tax ñuy continuer di wax ne yooyu dañ ko war a seetaat d'accord nañ ci ak ministre bi pour ñu xool yooyu fii weer nan la ñuy def ba mën a régler problème yooyu yëpp nga xam ne day leer nañ bu ñu waree yokk mburu ñu yokk ko bu ñu ko waree wàññi ñu wàññi ko ci loolu lañ d'accord ak ministre bi euh, déglu nañu déglu na région yi problème yi yëpp bokkul région bu ci nekk ak ay problème am mais déglu na ko moom ak ay staffam donc ñu jël ne peut-être fii ak ay fan yu néew ñoom dinañ commencer def li ñu war a def pour fii ak weer ñu dajewaat ci biir daje boobu nag la ñuy définir feuille de route bi nga xam ne moo ñuy permettre ñun ñëpp ñuy yëkkateendoo di wàccendoo ba nga xam ne secteur bi niñ ko nammee ñëpp dinañ ci gis seen bopp muy consommateur bi muy ñun muy ñeneen ñi nga xam ne dañ ciy dund